barab bii ñu taxawoon léegi ñu tudd ko ab stade digg mag raay bi ci la Sëñ Tuubaa lii mooy kër gi mu njëkk am ci àdduna moomal ko boppam ba mu jógee Mbàkke Kajoor fi la njëkk sañ ci dëkk fi fi la jógee dem Daaru Salaam yu mag yi mag ñi daa dañ mag ñi mi sa ci bi sëñ Mbàkke Moor ak sëñ Bousso bi ña nga fee seen diggante nag poowukaay xaju ci na bëggoon nag lépp luy tax pami mën fee toxoo su mënee am nga ñaan ko ñi nga ko war a ñaan waaw waaw sëriñ bi mbàkki gii fii la sëñ Tuubaa gane àdduna keroog ba ko demee Amérique ngi woon dee la joxee maam maaram 1712 ba maaram taxawee fii di léemu di léemu dafa mu léemu ba noppi dax ne taranga ndaba taranga li ma sama borom li saajal day fii ci mbàkki lay feeña su bu feeñee ñëpp danañ ci mën a yor seen loxo te ndab la du jeex te ndab li yoo suur bi kon nag ni la sëñ bi ittee la dara ñëru lu tax sëñ bi am ndam ci lépp mbëgg te am na ko ndam bu yàgg waaye luy tax ndamam li saa su ne mooy si lii de ci la bokk ñu ngi lay sant bu baax ti di la bëgge fab ko sëñ Mor bu sa faboon Bassa muy tuuti mu tuddeku ko jóg fi bàyyi ko fi battale nañ ko teg ci loxo sëñ Basiru ñu teg ci loxo sëñ Basiru wéccu wuñ yàpp jàpp googu kon noo ngi lay gërëm bu baax te la sant cant googu ñu laa mel nag mboolem ko sant Mbàkke mbaa ku yaakaar nañ ci bàkku moom la la yor bi yàgg fi loolu tuwéer nga doon dox tey moo sañ ci sañ ci Mbàkke ci 1712 demal amari nga woon ne la moo ko jox leew yi ba mu ñëwee ba taxaw di ko léemu dafa wax ne ndabal teraanga li ma sama borom digoon te dana ma ko joxe fii si Mbàkke la ma koy wàcce la ndab li mooy sëñ Tuubaa foofu nga dikkoon léegi ñu di ko tuddee ab stage digga mag raay bi fii la sëñ Xaadimu Mustafaa feeñe jamono kër gu jàkka jooju nga duggoon kër googu sañ sëñ Tuubaa moo njëkk moom ci kër bu moomal ba gannaaw bu mu jógee Mbàkke fii fi la jóge sañ ki daal saam sëñ bu soobee nga tëdd fee moo sañ Moor armeel yu jëkk yi mag ñi tëdd ñëpp mënuñu na sa ci tëli bi yooyu ñu xam ne la fa ne yelloo wut ak barab yooyu te mënuñ ko tawat kenn ku du yow moo tax ñu wax la ko noo ngi lay sant bu baax tëli bi nga jërëjëf jeex bu yàgg nga dëgg la dëgg la Mbacke dana fi jóge. alhamdulilah jërëjëf Mbacke. day ñaan day ñaan day ñaan ñëpp tàllal te ne amiin sëñ bi mën nga ñaan sëñ bi mën nga tàllal amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke ci alhamdulilah amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke. amiin Mbacke amiin mën nga ñaanal rek waaw Mbacke amiin Mbacke waaw amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke waaw mi ngi ñaan kay mi ngi ñaan kay Mbacke amiin Mbacke ndeysaan amiin Mbacke wala amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke